di leen wax ngeen abonné ci chaîne bi di l'oreille du monde TV te bés cloche de notification bi ngir ngeen di mën a jot seeni vidéo à temps réel waaye itam mën ngeen ñu bàyyil seen xalaat ci commentaire bi ndax loxoy du monde TV yéen la fi nekkal ngir di jaamu seeni soxla. asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. mbokk yi xarit yi soppe yi maa ngi leen di siyaara. siyaara bu gën ci siyaara yi gannaaw loolu may ñaanal suñu mbokk yi jiitu alaaxira mu may leen àjjana ndax ku nekk ci ñun am na mbokk bu ku nekk ci ñun rek am na mbokkam bu dem alaaxira yal na yàlla bool ñoom yépp am yirmande ci ñoom may leen àjjana gannaaw loolu dama bugg a tontu ay quelques questions yoo xam ne yi dugal nañu ko ci suma whatsapp léegi ñu ngi may laaj lu dem ci mbiru réew mi ak mbiru Seydil Karim Seydil Karim bi nga xam ne bi dafa tedd jub wiir ñu di ko wax Sonko Ousmane sunu rey ni yàlla moo ko defaloon Ousmane bun Affan yàlla ni yàlla usmaan mel ni turandoom ci ay may ndax Ousmane moo dencoon ñaari soxna yoo xam ne yii doomu yonent bi la nekkuñu di waarati wala di gàmmu moy Roqaya ak Umu Kalsoom yal ni yàlla taaf usmaan Sonko ci barke Ousmane bun Affan léegi waxtaan bi moyne ne da ma laaj am ku laajte ne waaw ñu ngi wax libéré Sonko libéré Sonko léegi Macky mel ni dafa suu wala dafa ne jekko naa leen naa leen sonnal déedéet makki boppam la jekko Macky ci boppam boppam la jekko nit dina jekkoo boppam te du xam ne jekko na boppam ndax bu deex amee Macky moomu mooy deex bu ñàkk amee Macky ak waa ñoo ñàkk li ma bañ ngeen di wax libéré Sonko libéré Sonko ma ne bi nga xam ne bi deex mu ngi door a am mooy doomu aadama yi ñoom ñaar ñu reyante ngir foyer ngir soxna foyer bi nag mooy politique léegi kenn jàpp kenn ak rey ko Macky nag bugg nag reylu Ousmane Sonko reylu dëgg bi nga xam moom lañ soxla ci dëgg bi reylu suñu alal jox ko ñeneen kon libéré Sonko du tax makki def dara encore kilifa yi di leen nelewal ndax fa ñu toog bugguñu fa jóge te loolu nekku Macky mooy tax ñu am li ñuy won ak li ñuy lekk léegi si tey dinaa leen wax libération bi lan moo ko war a indi te mu nekk cent pour cent dégg naa ne te gis naa ne bi ma déggee ma gis ma teg suma baaram ci kaw nuqtatul aswad ci maanaam point bu ñuul bi bi nga xam ne moom mooy dëgg am na kilifa yoo xam ne yii yëpp la fay def yëg naa ko ñii ñoo ngay def ay wajifa di def ay laasim di jàng ay tahsin ñoo ngay ci ay jaakum rasulun min anfusikum azizun ilal axir ñoo ngay def léegi nag yasin ñoo ngay def léegi sayfiyu allahumma malikal mulki yépp ñoo ngi koy def fa ñu muuru ne dañuy ñaanal Macky mu continuer léegi ñoo ngay dox ci suuf di jéem a jubale waa kër Macky ñooñ ñooy ñan ñooy sëriñ yi sëriñ yi ñoom ci seen bopp ñooy def lool waaye dama leen di yëgal fa ñuy mujje nda aalimul xaybi wa shahada yàlla moo xam ni fàddu waaye dina jël jaamam jàngal ko loo xam ne lii moo ngi fàddu léeg nga gis benn gent gent gi wir léeg nga gis genn gent gent bi nekk saraab hebe an mansour nga xam ne doo ko gis mukk léegi suma mbokku waa Touba maanaam Mbakke Mbakke li ñu tuddee bikka bikka ak waa Sisi Sisi ak taal taal yooyu muuru ñu ne dañuy ñaanal Macky ak ñi ñu wax bax Madina Gunaas ak yeneen kër sëriñ yi arrêté le seen démagogie seen calomnie seen banditisme ngeen bàyyi population bi mu libre loolu du tax mukk makki mi moom Sénégal walla baayam walla ndeyam wala ñu ànd ak moom bandi yi moom di défendre xale yi bu leen jàkkam may tontu seen question waaye nag dafa am loo moom laa bëgg leeral léegi si jot naa koo xam dafa fekke hadara hadara moom moom lay tiijaan yi def xadara léegi ñu ne xadaratul jumaa am na benn xadaratul taxdiirul arwa qadiman wa hadisan kooku ñi jàng falaki yi ñoo xam ñoo ngay def lu nek yéen wa tal tal yi ngir yàlla mbu leen ñu ruslo way nak moytu leen gaay dañu jàng xam li xew dañuy commencer lu jitu Omar fouti yu foofu la ñuy wax waaw ñoom Thierno Bal ak ñooñu ñee leen jiitu depuis quatre cents ans depuis cinq cents ans depuis six cents foofu la gars yi di commencé te kon buy moytul dañuy muri seen rido dañuy muri li ngeen nekke waaw waaw maa ko wax jooguma leen suma tur maa ngi teg tudda Cheikh Ousmane Pouye Tadjoudine waaw pour ngeen ma gën a mën a xam mooy safen lébu bi nga xam ne bii moo ngi juddoo diggante commune de Diass ak dakaaru Njaay bokk ci département de Mbour ak région de Thiès ak bu Dakar pour ngeen man ma wut bu ngeen may wut ndax ñu ne ku yëngu ñu porte la plainte yaakamte na ngeen porte ma plainte kooku ci buntu tribunal balaa koy reylu gis ne dof dof lu ngeen di def ku yëngu ngeen da ngeen di yóbbu tribunal xanaa gisu leen président tribunal magistrat yi procureur généraux yi yëpp ñu jàpp leen leen ci buntu tribunal porte leen ngaay plainte da ngeen tasagul ak jàmbaar yi da ngeen tasagul ñi nga xam ne ñi ñoom nitu yàlla lañu te naan mbiru yàlla waaw euh, dama bañ yàgg mais bëggoon naa jox ay tafasil ay yeneen bunte yoo xam ñëpp dinañu gën a xam léegi léegi si tey dangeen ma ne sëriñ yi lu tax ñu noppi ñono lu ñu def man xam naa ko ndax ni ñu amee taali bi ñu war leen ci biir taali bi dama ci am ay nit lu ñu def rek ak ñaan ya ñu def dokk ya ñu joxe ne dañuy ñaan ñoom ak dokk yooyu yëpp dañu dem ci tahluka waylun lahum tabbat lahum waaw yéen sëriñ yooyu nga am dangeen ngeen muuru ne di ñaanal waa kër Makki ak Makki maa wax ne tabbat lakum waaw comme ni abila abil moom nekkoon yàlla alak waaw maa ngi leen wax ne incha yàlla dina sànni ay xeet yu tàng ngelaw lu tàng ci seen kaw ba mu gën a tàng xeer yi ñu doon sànni abrahat tarmihim bi hijaaratin min sijilin tarmihim bi hijaratin min sijilin waaw ma ko aleykum antum shuyuux ci seen kaw yeen sëriñ ji bi hijaratin min sijilin tarmihim bi hijaratin min sijilin kuntum antum shuyuux yeen sëriñ yi ngam da ngeen di nekk ñaanal waa réew pour ñu continuer ci musiba bi ñu nekké yalla ni yalla ngeen alku yalla ni yalla delu len gannaaw yalla ni yalla jox len febar yoom dootu len jox mukk ci kaw lal maa ko ñaan lu ngeen xam ci ñaan na ngeen ko def mutawajjihun ila sheikh usman puy tajudin fa ana asalu allah an yuhlikakum jamian antum shuyukh waaw kon gaay ngeen bal ma ndax lima duggal ci mbir mi xëñ na am na xaju sëriñ yoo xam dinañ ko capté xam ku mooy lan waaw waaw léegi dama seen ñaan yooyu ngeen nekk di ñaan bugg nag dictateur yi continue ci Sénégal du dem fenn ak seeni candidat yu bon yooyu la ngeen defe waa Sénégal dañu dof léegi be di jël candidat benn bandi benn wuyu a saariqu wa saariqa faqta yàlla moo ne sàcc ak sàcckat bu góor ba bu jigéen ba na nga fexey dog seen loxo yi ngeen gis bandi ñuy terne ba ñu ne dañoom am candidat ngeen toog di xool du dañuy porter plainte di tooñ ñu mel ni kay foofu ak ñeneen ak ñeneen waaye lay nañu nañu provoqué waa ji waaw jàmbaar bi nañ ko provoqué ma ne ci buntu tirbinal fa ñuy dem di rang di dee foofu la ñuy toji seen bopp ay bal waaw arrasaas min al jahl nama إلى رؤوسهم جميعا أيها المجاهدين في سبيل الله لا تقتلوا هؤلاء اقتلوهم واحدا فواحد waaw fu ngeen tase ak ñoom rek na jeex kon xale yi ma dellu tuuti pour tontu seen question tontu ko dañu commencé woon ne libéré libéré xam ngeen xurriya moy liberté yàlla jox na ku nek liberté way dafa am bandi nek ci bir yo xam dañu ko xajabal bu ngeen yaakar da ngeen di wax libéré libéré ñu bu libéré ndax ngeen seen bop ay golo lañu al ala al asjar golo yu nek ci kaw garab gi ñu di leen di sànni xeer loolu la ah gañu bax ñi xam ngeen li ngeen wara def Dok garab gi ñom ñu daanu ci suuf waaw golo bu la jaaxale nek ci kaw garab di la sanni di lek meññet yi di la sanni dogal garab gi mu daanu ci suuf nga fekk ko toj boppam waaw gis nga li ngeen di wax libéré tax ñu libéré da ngeen di genni afwajan afwajan ilayhim na ngeen genn nekk mbolo ci kaw mbolo ngeen fekk ci len toj kar yi daggate seen yaram yi du mu ma nekk di woññe lépp commencement ci seen bopp mooy président ba ak ñi mu àndal xoolal ki moo ñàkk jom moo ñàkk fulla ak fayda bay bi nga xam amul woon li muy ndikke amul li mu woon reeree waaye nag bu ñu waxee bàyyi ba ñu tooñ ko xëj na bàyyi ba du bàyyi ba keneen mooy bàyyi ba damay répété bu ñu waxee bàyyi ba ñu toñ ko xëj na bàyyi ba keneen mooy bàyyi ba waaw béy béy mooy bàyyil boo deggee béy béy mooy bàyyil bàyyi ko bàyyi bàyyi xëj na baay ba du baay ba keneen mooy baayam moo tax bu ngeen jekkee ngeen nekk ne da di dimbali waa réew mi dimbali Sénégal seen dëkk seen candidature yi sax bëgguloon ko dégg nañu wut ñu laap ñu prop teg leen ci kaw bopp réew mi waaw lii bare lii nangu naa ko ànd ak yéen yàlla moo joxe xurriya xurriya mooy liberté jaamu yàlla dëgg day am liberté waaye ñii du ñu jaamu yàlla ñii kufar lañu kaafir lañu waaye nag lakum diinakum waliya diin na ngeen dem ak seen i caaxaan yi ak seen pexe yi ma des ak suma dëgg di ngeen xam kan moo am dëgg ci ñoom al kufaar al fujaar al mujrimiin laanatullahi aleykum wallahi allahuma amin ya rabal kawnayni ya rabal xuda ya rabal mustaqim waaw waaw maa ko wax di ko répété ma tudda Cheikh Ousmane buy taaju di xale yi bàyyi leen ne liberté liberté jóg leen xeex haaribuhum aynama kaanu na ngeen def guerre ak ñoom fu ñu mënti nekk laylan wa naharan sabahan wa masaan fi kulli makaanin fi ayi lahza haaribuhum na ngeen guerre attaqué leen wa aqtuluhum jamian bu leen bàyyi kenn ci ñoom groupe bi xam nañu leen léegi jël nañu tur yi waaw moo tax leen wax ne bind leen bind leen yéen bindkat yi ñoo ngi leen di sant bu baax baax ndax jot nañu ay nouvelles yu baax baax am na ñoom yaakaar ñu ne sax bind nañu seen tur waaye seen tur yaa ci biir ñiy dem ay tribunaux nañ dem tribunaux ñi dem laay nañu dem fu nekk waaye ñi dem ci suma groupe bi moy al qatl wal harb wad darb rey door kooku mooy suma groupe maa tudde Cheikh Ousmane Pouye Tajudeen ngeen jog di mo Amadou Ba ak ñoom Daawud ak yu kenn xamul xat yooyu yëpp na leen ramasse def leen ci poubelle sànni leen ci géej gi kulluhum kon xale yi seen question bi ma nekkee tey mooy benn bi rek question yi bari na waaye fan yi dinaa ci dugg waxtaan ak yéen waaye bàyyi leen ne na ngeen def na ngeen def léegi libération ngeen defe ne Macky ak bandi mu àndal dañuy nekk di xalaat yooyu de dañu bugg a bàyyi temps muy passé bi ci dernière minute mu ne damay jéem a sàcc élection yi xamu ne système bu ñu teg xam nañu ko système bu ne ñu teg xam nañu ko population bi bu ngeen amee jom comme malien yi bu ngeen amee jom comme Niger comme Burkina bu ngeen amee jom comme léegi Guinée bu ngeen amee jom comme yeneen réew yi nangeen jog jox yi am leen jom sénégalais sénégalaises nangeen am jom am fullak fayda màggu xaj yooyu le nga xam ne du ñu dara bu ñu yëngoo ñu ne ñu portable te yéen la ñuy ragal loo man de bayal rek ci bopp servo door la bal ba nga jaaxaan waaw. gisoon naa beneen tribunal ci Afrique yéen Sénégal yi ngeen xam ne fekk ngeen ko na ngeen ko fàttaliku ay juge di dof-dof lu ay procureur dañ leen door ci biir benn waay moo dugg rek door leen ñoom yëpp ay bal ñu ci biir suuf si ci kaw suuf tëdd mën naa leen ko wax gabon la woon gabon jarul di làq waaw réer nañu leen ñu ne peine de mort dafa amoon waaye yooyu tam def nañu loo xam ne kenn mus ko def door procureur yi door gis yi ay bal ba ñu jaaxaan ci suuf lu tax ngeen ko def ci seen tribunaux yi yéen xale yu góor yi ngembu leen yéen man ñii ragal lañu ragal lañu ragal lañu nitu yàlla dëgg du ragal waaw laa xawfun alayhim wala hum yaxsanoon awliya allah jaamu yàlla yu baax yi nitu yàlla yi lan mooy wàlli yu wàlli yu ma ki ànd ak tafu ci yàlla bugg yàlla waaye nag sëriñ yi ñoo ngi leen di nelawal am na sëriñ yoo xam ne li ñuy lekk di wan seen di feccal seen jabar ci guddi moom la xam ñu bari ci yéen nag ngeen baal ma moo bi xëj na noonu la walla du noonu sir ñu bari dañuy ndaw ràggin ci guddi dañuy ndaw ràggin dégg naa ñu ni wax noonu la di ndaataa tala waaw sir ñu bari foofu ñu ngi muuru bu ñu génnee di hum yépp dañuy ndaw ràggin ci guddi ci sa kër mu jabar yi ndaw ràggin yi ndaw ràggin kat yi maa leen ko wax te joxoñ leen nag ma xam li ngeen muuroo lan la fi ngeen toog ma xam lan la ñu baax ñi ngeen wax da ñoom ngeen roy da ngeen di fen da ngeen di kàcc xale yi fu nit man ci nekk ci adduna bi adduna laa laa ni wax lii bare rafet na waaye nag yet bant garab jaas yi lépp rek ngeen jublu ci ñoom ñoom ñoom ragal lañu boobaay waaye bismillah rek nga tudd yàlla rek jubal ci ñoom rek ñu daw ñu daw bu dara xewee ci Afrique ñu génn comme golo di wax ni dañu toogal diinal islam wala li taawun pour mën a dimbal nit ñi dañuy fen hum min alkaadibin li gën rey ci bakkaar moom la ñuy def mooy fen di fen population bi waaw muuru leen ngeen di wir di def seen laasim yi seen wirde yi di dajale di jàng ndeysaan barki dem ba benn nit mu ne ma góor gi lu tax Cheikh Ahmad Tidiane jóge Maroc man ko gadaay nit ku nekk war na ko def waaye aslu bi xamuloo ko coosaan bi xam nga ci Ahmad Tidiane ak mbokk mi gan lañu ci Algérie coosaanu Algérie mooy berber ak kabyle arab dafa ñëw naar yi dañu ñëw Algérie coow li foofu la nekk benn bés ma tojee li xew moo tax mu depart dem waaw waaw cosaanam maa fan la dañuy wax ne moom mu ngi bokk ci silsilatu alayhi salaatu wasalaam silsile bi gën a sori ku wax ñu ne sharif shurafa yéen ñëpp sharif ngeen kan mu nekkul sharif jàmm ko ti yàlla sharif la man shérif la nag ma jox bàyyi leen caaxaan yi waaw Cheikh Ahmad Tidiane dafa am mbokk ci France kon nag xale yi bu ma amee temps tuuti rek ma waxtaan ak yéen dama ne préparer leen mu nekk benn génni bu génne dara bu mu des da ngeen war may benn bokk taskat benn bokk bakkaar benn war a bokkoo deexandoo ensemble ñu rey leen ensemble kenn du fa das na ngeen préparer loolu ngeen def ko yéen yëpp ngeen am am kër ci àjjana جنات تجري من تحت الأنهار خالدين خالدين خالدين نك فنك أبدا ndax garamu yàlla ci li ngeen def ci kaw suuf ñi ngeen rey moo tax radiyallahu suma yardaakum wa yajalakum fi jannatin tajri min tahtiha al anhaaru xaalidiina fee abadan abada xaj yi ku ci rey ni rek àjjana ngay dem kaafatan nag ak ku mu mënti nekk nag allahuma ihdina siraat almustaqim siraat allazina angamta alayhim xayri almaadubi alayhim wala daaliina pour ma bañ a yàgg ak yéen dina profité ñaan suñu nit suñu xarit tuddee boppam sëriñ te mat na sëriñ Cheikh Ibrahima Dramé waxoon naa la ne sa ñaan bul ko xeeb boo ko xeebee yàlla xeebu ko li ngay defal waa réew mi ci sirran wa jahran muy lu nëbb wala lu feeñ lu rëy la ci biir réew mi ndax ñi nga àndal seen ñaan bi de gëm naa ko gawma ñi ñaan di ngistal ne dañu yore seen maam yi ak seen ndey yi ak seen baay yi ñaan boo xam du dem fenn du tegu fenn moom laa gis ci ñoom Cheikh Ibrahima Dramé ma ne na nga gën groupe bi nga àndal ngeen gën a toog ñaanal waa réew mi ndax bi yàlla waxee ne ad'uuni astajib lakum ñaankat yu baax yi lay waxe ñu propre jub honnête te bugg lu baax ci àdduna ak àllaaxira pour seen nit ñi bataaxel yi nga xam moom nga ma wax keroog xam naa doo dellu gannaaw doo tiit doo lox ndax jambar al batal du dañ mukk di nek jambar te yow sa papa borom xam-xam la won kilifa diini yu bari ay tariqa dan nañ ñëw dem di ñaan lu ci mom kon yoy ñaan ma la koy ñaan nga defal ko waa mi ci gannaaw lo le xali libéré libéré bant garab jaasi fetal mooy jeexal mbir mi préparé leen ngeen génni ki doon wax ak yéen tey nag mooy Cheikh Ousmane Pouye Tadjidine dina wax ne asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu fiikum wa alayna jamian shukran